donc juste rek ci une petite vidéo sur euh, comment sécuriser un vote donc premièrement li ñu war a xam mooy sécuriser un vote nekkul dem assaillir euh, corps électoral bi bureau bi parce que foofu noonu mandataires yi ak euh, corps électoral bi ñoom ñoo fa war a nekk donc votants yi amuñ droit dugg fa lu dul dañuy voter beneen bi aussi mooy loolu amuñ droit sécuriser le vote tant que vote bi jeexul parce que mandataires yi ñoom ñu ngi ci biir danañ sécuriser ci biir donc beneen affaire bi may wax moo nekk loi électorale moom moo permettre bu ñu demee ba vote bi jeex ba ñu tëj nañ bureau yi foofu nag li fay def yëpp li li ciy des yëpp moo nekk euh, décompte bi ak publication des résultats yi yooyu noonu yëpp public c'est c'est en public lañ ko war a def en fait c'est-à-dire que bu ñuy décompter public bi am na droit euh, fekkee ko bu ñuy compter aussi bu ñuy def dépouillement autant pour moi bu ñuy def décompte bi aussi ça doit être quelque euh, de public beneen affaire aussi proclamation des résultats dafa war a am à haute voix et euh, nit ci dégg ko beneen bi aussi mooy affichage de résultats bi bu ñuy afficher résultat yi aussi foofu nit ki am na droit ñëw jël photo résultats yi proclamer ko ou bien informer les gens ñi nga xamante ne nekk ñu fa woon mu partager leen ko ba nga xamante ne résultats yu ñuy joxe ak euh, yi nga xamante ne nii moom moo nekk au bureau du am woroo du am manipulation du am dara donc euh, pour sécuriser le vote daal nañu jàpp ne c'est pas dem assaillir biir bureau bi andi fa boucan et tout non ça c'est pas sécuriser un vote sécuriser un vote mooy bu ñu def proclamation bi dépouillement bi ñu fexe ba loolu nekk quelque chose euh, bu ñu def en public dépouillement bi proclamation bi bu ñuy compter aussi bu ñu paree aussi bu ñu afficher résultats yi aussi ñu jël ko en photo partager ko nit ñi euh, bu ko defee résultats yi ñuy proclamer après ku nekk xam ne kat résultats yi nii ni ñuy